ay ca mbokk internet nag euh, kii ñu taxawal nee naa leen du ku ñuy présenté tabarkàlla xale bi nga xamante ni moo mën ci animation bi moom mën ci théâtre bi sénégalais yi nag bëgg ko lool di ko seetaan yàqul daray réew mi muy yaawa resool moom la ñu taxawal du ñu def rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo mu wax ñu yëg-yëgam ci màggal gi yaawa ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu sénégalais yi nga xamante ne bi ñoo jàkkaarloo ak ñu di am contentement <laughs> comme yéen moom kenn mucc ci yéen mais ak la rek parce que ba Serigne Touba teewe ko rek ak cant la ndax am nañu ko teewe woon daaw te ren nekkuñu fi ñuy ñaan suñu borom ñu fekk ko ay déwén yu bari yàlla defal ñu li nga xamante ne bii mooy liñ fi sàkkuse muy ay ñaan balaa bi ne ci réew mi ku ne xam na ni dem na nag wax dëgg neex yàlla ndax ñu ngi sant ak sant weesuwu toog rek di sant ak doomu aadama yi nga xamante ne ñoom ngay saafanteel dara dàq ko ñu ngi sant bu baax. yaaw a tey ku ko xam-xam ne Layeen la euh, tabarkaan la mu koy feetee nag nee naa leen kenn mënu ko ci moom it ci réew mi bu appel yi ñëwee Sénégalais yëpp gis nañu li nga ciy def ñu gis la tey ci bés Serigne Touba bi mu nekk dëkk ak dëkk ban yëg-yëg nga am ci sëñ bi ba tax nga teewal ko. waaw xam nga ñun ñun Layeen dañoo polyvalent Sénégal moom daf ñoo tàggal ci loolu ba nga xamante ne bii ñun fu ñu dem rek mën nañ faa nekk ndax suñu ngëm du dañ ci ñun du wàññeeku ci ñun waaye tamit santale sëñ Tuubaa bësam bi day yell ci jullit bu ne képp kuy jullit rek day yell ci yow nga santale ko te ñu ngi sant nag bu a baax a baax. Euh, tey ñu ñëw fekk la lan moo nekk seen diggante. waaw xam nga ñun moom yàlla dafa dogal sëñ Béthio joo xamante ne bii Sénégal kenn mënu koo fàtte monument la je peux dire ay doomam day nit yu baax ku mel ni Seydina Thioune ku ci mel ni Mbidaadi sama xarit ñooñu nga xamante ne macha allah ñoom am ay liens yoo xamante ne bii dama naan rek macha allah di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi ànd ak tawféex et que njaboot gi ñëpp nekk benn incha allah yaawa heure ménage man daal damaa bëgg a ñëw ci fête bi loolu kañ lay doon. <laughs> waaw ñaanal rek léegi incha allah. ñaar far nga benn far. mbaraano. Euh, ci kanam ko <laughs> mën a goo dem heure ménage bi kañ la yaawa lan bàyyi dàqaate bi di kenn du ne yaawa bëggul am jëkkër dañ naan yaawa day dàqaate bàyyi dàqaate. non pourtant dàkkeewu ma de damay damay damay lii rek dàkkeewu ma maa ngi ci ci la ma nekk ci laa nekk rek gëm ko nekk ci rek. naka nga gisee seen série bi infidèle sénégalais bëgg nañ ko de. yéen a ngi koy seetaan mu ngi neex gis naa yéen a koy consommé. Oh, <laughs> mais coow li bari woon na torop nag ban yëg yéen nga ci <laughs> amoon. na rees ak jàmm. <laughs>